heure bu ma jëndee sama radis teg ko fii pour après di ko digérer loo bu nga jëlee radis di lekk yaa ëmb wala maa ëmb. ku la ëmbal radis mère soxna Dukkure yi dafa neex radis bii dama naan dem ba bayaal jënd ko ñëwaat. waaw mais instant man dama koy <laughs> sama xel la nekk dama cee jënd yu bari dugg ci frigo mais un su ma ñëwee ma fekk dara ma ni kër gi amul xale kon kuy lekk radis. kuy fay sama daqaar nga maj sama su ma defaree sama petit jus nga naan ko. ay bu su may tuflee nga tufli bu wàccu yi sax yaa ma koy force ci biir salle mais maa ngi lay dégg ngay wàccu. man sa est-ce que ay seex nga ëmb benn ma ëmb benn. sa màdd lay lekk mais musuma laal say Dakar arrêté man duma laal Dakar yow mënoo ma ma bàyyi sos. waaw. damay ngay jafte yow instant yi bu ëmb ak sama bos. pourquoi nga mën a yàq waxtaan. parce que ëmb moo fi ñëw ëmb ñëw na fi. moo ñëw fan. fii ci kër gi nee na woo na la ba sonn jotu la. te nag loolu maa ngi yow waxtaanoon nañ ci ba mu dee man la bu yaa fi taxaw ne carrément fase nga umu sekkatoo ak moom dara léegi nag soo amee loo koy def wala loo koy wax wala soo fekkee daam loo koy jox nga fekk ko këram mbaa ngeen xam foo leen tase mbaa nga envoyé ko mais pour umu di ñëw sama biir kër di ma fekk fii ma toog di dugg sama biir saal loolu moom duma ko accepté sekkatoo leen dara na toog këram nga di ko fa fekk mais bu mu ñëw ci sama kër ndax ma déjà umu dama ko ragal dafa am fit sañ na lu ne mën na maa fekk fi man kese ma wéet mu dóor ma maa mu dina fexe ba yàq sama ëmb mën man daal dama ko ragal neel umu mu toog këram la ko fay fekk. j'espère que umu bi mu ñëwee kër gi ñaar xuloo fi ak moom. xuloo ah ni mu ñëwee rek noonu laa ko accueillir. sa noonu laa ko mooy maanaam dans contre dans. xuloowuñ xuloowuñ moom gaa nee woon na la jotu la su la wooyee dee ko jël. kii nii umu day fen elle dit pas la vérité. umu wowu ma téléphone sama téléphone nii nii yow xam nga ne toujours sama téléphone c'est à portée de main wowu ma je comprends parce que dem naa këram wax naa ko li ma koy wax loolu moo tax mu ñëw introduire sama kër amoon mon absence te xam naa ni am na fi ay pion am na ñu muy woo ñu naan ko nekk ma fi mu ñëw fi bu fi xuloo ak moom bi mu ñëw lan la wax lan la bëgg. man ubbi naa sama poche ne ko ñaata nga soxla juste rek pour umb dem ñaata nga soxla soo ñëwee ma wax la ko nga fay ma umb nee na man du ma ko jox xaalis. c'est paradoxal umb këram laa dem je lui de l'argent. soo ko joxoon xaalis dina ñëw fii naan daa daa am ordonnance yu mu war a jënd te jënd ko. wallaahi wallaahi taala sama xaalis laa jox umb je lui donné de l'argent pour fii ba fii ak un mois umu waruma woo téléphone ci affaire xaalis bu dee visite mi c'est mi ngi ci n'a pas de moi soxlawu ma. à moins que moom une catastrophe te xam naa ne ku jógee këram déplacé wu fii amul benn problème elle avait voulu venir pour te provoquer bu ko répondre ci loolu man dinaa régler problème bi parce que je l'avais défendu de venir chez moi newoon naa ko sama kër bu fi tagati sa tànk. fi ñëw dëgg yàlla yéen sax yabeel la ndax man umu duma ko fekk këram ko woo duma ko message lijjantiwuma ko mais fii moom bu mu fi ñëwati daa ëmb sa doom d'accord loolu yéen ñaar la lijjantil kaawam mais fii bu mu fi teg tànk dëgg yàlla. c'est une dina jot sama jikko man sama xol bi kenn du ko yëngal fi mu dama sonn. sa xol bi mun te yëngu nag sama rajo gi yëpp màcc nga ko yaay it. sikk nga ba mel ni duus ku xëy fajar wala li nga yor da ngaa sikk. mais dukkure yi tamit nan wàññi seen suukar si ma bëgg ay suukar trop les dukkure dukkure yooyu la. gaawaan kontaan naa kontaan naa bu baax a baax a baax a baax a baax bi ma dikkee waa si sëñ ture Touré ñëpp génn sa yaay baax bay bëgg a dee voile bi ma jox sa xool moom dalaa sol nii billaay sama doom ji kontaan naa doon gone du am jom kontaan naa ci yow de ak bernde gi ma bernde nag café Touba gi asu sonal naa la de nuyu ma sa waa xarit yëpp nuyu ma leen waaye nuyu ma leen nuyu ma sa yaay baax dégg nga ne sëñ bi rek fan yi danaa fa ñëw Touré yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér barke nabi Moustapha yal na ko fi yàlla bàyyi Touré ak baax nuyu ma ko baax a baax waaw dinaa la woo ci kanam incha allah merci bi moo baax waaye ndeysaan waaw. Barke damaa dégg ne dangaa jiñ awa sàcc ci loolu nag laay ñëw. aw jiñoon nga ko fi sàcc boobu neew ma fi. mu la tépp saaga àddina bi yëpp dal ci kawam nga dolliwaat ko duma xaar nag muy ñett wax ak yow nag dafa jot yow waroon ngaa jiñ ñëpp sàcc suuf awa ndax yow gis nga ni awa mel ak yow gis nga li awa daj ci xew mi gis nga ni awa def lépp ci sa xew man damaa jële la sama bopp ndax man sa xew mi dama cee dee ay bor fekk ma ci lu ne fekk ma ci. waaye dem waaw lépp rek ngir taaral sa bés ndax dangaa bëggoon ko taaral sa bés ñun ñëpp taaral sa bés <coughs> mu rafet lool ñu pare nag des ci yow nga ne ci sa jàmm ak ci sa salaam lenn nag laa lay yëgal gis nga awam yi yow yaa ki koy cippe yaa ki koy bàyyi sàcc bi ngay jiñaate ci kër gi day dakk ci moom yow yaay sa sàccu bopp ndax yow yaay jël sa alal di ko sàcc di ko def li la saf soo retourné ni ci kër gi di zëmbale di def lu la neex te fekk na yaa lekk sa xaalis tey lay njëkk nag tey lay mujj bàjjen ngay jiñati awa sàcc xaw ma kan waaye yow moom danga koy bàyyi moom awa moom danga koy bàyyi soo ko bàyyiwul nag maa yow la ci biir kër gi duma ci bañ nag ba ici repose wax naa la lu leer nag na nga bàyyi jàmbur falaa yam isi reposé du ci am balaa bala ma ci am mais condoléance am ci awa boo ma sàcc ndax xale buy liggéey am as salaire su tuuti dindi di cent mille dindi di deux cent mille dindi di trois cent mille xamoo fu mu ko jëlee yéen man xëy mi dama leen cee santul dara ni leen sonn leen wala ngeen def ci leen ndax man la la ñu ma jot a jox sa dañ koo boole sàccaale benn yoon. yaa ko lekk la ma benn jaata joxoon jox ma cinq cent mille. ni ma bàjjen ma ne ko ah mun ma xëy ma munu maa ñëw waaye yónni naa laama ñang jox naa ko téeméeri junni mu nit la ma jël sa euh, un million teg jël cinq cent mille teg ci cinq cent mille ngeen ma joxoon teg ci jël beneen cinq cent mille ngeen jàtta joxoon teg ci sàcc ko yaa ko sàcc ñaari chaîne or ma ca joxoon ma ne dama ko yendoo ñu sàcc ko yaa ko lekk yéen euh, li seen problème xam naa ko xam nga leen war a def féexal seen bopp te bàyyi ma ndax aw moom ci boppam bu ma sàccul woon du ma ko wax ndax aw ba ma dalay sàkki daa yàgg yu bari dama koy jëndi te sama tànk bi di ko nës tësal deux millions nag du caaxaan deux millions du ay fo man duma seen moroom respecté wu leen ma ci biir kër ga su ma génnee doom ñëpp respecté ma bàjjen a ngi nii bàjjen je suis là bàjjen est yaa ngi dégg soo la ma kër su ma ci biti dañ may topp bàjjen bàjjen xale yi dama accolade bëgg ma bay bëgg a dee seen xol yi dëgg te mën nañ ci dara léegi nag lenn la man sama xew santuma leen ci dara sa bor yi nga war a dem lijjanti li ngeen di sa bor yi nga dem lépp lépp ay yére sol yéen yéen yéen da ngeen amul sa fulla nag ndekete yéen yéen personnalité bi ngeen di woote nekku ci yéen gis personnalité du sañse de yéen sañse ba ngeen sañse ca réception ba di baa ñu naan ay yow xool seen ñooyu ni mu rafete ak seen pers ndekete amul benn personnalité personnalité ci xel la xel la xale sañse xale am personnalité waaye boo la jógee lépp di ngeen di ngeen yëpp yére lépp greffage lépp def dàll lépp saak billaay xale bi fi ñëw bërki dem bu tojoon seen lu bu tojoon seen lu bon bokk jàpp dóor leen ba ngeen bëgg a dee <laughs> foo leen rambate kaani sax ko ñu demee sax di nga ko fa bàyyi am leen jommaay ba may nit ñi jàmm yow de xale boobu eh. moo la gën moo la tane hmm. ndax moom ba ñu amee problème ñëw dis ko suñu soxla daf ñu koo fajal waaye yow yaa ngi yor sa xaas nit mu mu toog te lijjanti woonu seetooñu waaye ñun fay nañ suñu bor ñun daal wax ji lenn la la awa da koy bàyyi par A ou B gis nga aw moom boo ko bàyyi gis nga sa rocc jam boobu yow ko ko bàyyiwul nag bàjjen gis nga soo ko bàyyiwul waa ay ca ca na nga bañ a bàyyi awa di nga xam ne coow la ko la di nga xam ne man la bàjjan rocc jëm kenn du dindi sama loxo bii fir rek bàcc aay <laughs> ngay nelaw yow da leen nga yeewu xamu leen ma sax maa leen gën a bandi yéen ñëpp sadigu leen sa waaye nee nga dangaa cenc noonu <laughs> non danga bett waaye amul cenc danga maa bett mais jigéen yéen yéen kañ ngeen am jaani biir kañ ngeen di dencal seen jëkkër ah yow maag yow ñu ànd foo musul dem gisoo kenn ku ñu xam man yow ak yàlla ak li ñu tiim di ko lekk ci ci taabal ji yóbbu la see kacaa ni la bu kenn yëg ah nga ñëw di waxtaan yow li nga ma nar a yàqal xam nga ko ñii nga xam ne nii boo yëgoon li ma yëg di nga def attention wala yow da nga may yéenewul ah. sa lii la bëgg a yàq. waaw ay waay ndaw Samba. ma ne ko ci ay waay ndaw Samba. kii laa la wax lu xaj mënul ci paanu guura mënaluñ ko ko. ma fekk ci bopp lalu asu ñaari yoon butéel na mu ñemewul nga mu bind ci saa ne maanaam si ñor ay xaatim ñu juutal ko. aywa la sax yow kii yàq lii lañ dalay song xeex ak yow pour yàq ko. kii xam naa turandoom dafa ñàkk fay la wala mata de kii turandoom da koo ñage ba pare man it ma ñage ko foo ne. turandoom da koo tal boobu léegi mi ngi jubilé. waaw léegi mi ngi ci moom nag nee na ma yow toogal rek ëmb bi dina développé incha allah rabi sama turandoo bi dina gé dundoo ak jàmm ak juddoo ak lii la ma Sadio Mané vocal démb. en tout cas da ngaa war a def attention yaa ngi dégg ñii baaxuñu dee ko tey yow man sama digganteeg moom mën na fi jóge jóge yàqu tu boobaa coow li ni gàmb ci yow bugguma fi mu ne am coow a xoolaat affaire yi. ba man man man balaa amee ma kenn yow laay balaa amee gis nga boo yoree ay jabar da leen di yemale déglu ma rek ma la yemale wooñu baax ndax ñàkk ñoo yemale weesuwul nga yóbbu fi ma yóbbu ba naa bu ko wax kenn luy bul ko wax kenn. parce que lii bugguma coow coow yow da nga da ngaa weex dung balaa pilim garaaw bugguma li nga yor bugguma ñu coow loolu. dong ragaluma kenn maa ko wax. yow nag as li tax mu ne nemm nii am na lu ciy lëndëm. lan moo ci lëndëm. ñàkkul li am na loo ko bokkal. ba dama laa xam ne da ngay tëj gémmiñu nit damay waxtaan ak moom ñaan ko. déedéet as que bëgguma mu attaqué la xeex ak xam naa ko. gëw elle est agressif. as gëw ma ni yow da waxtaan ak moom jox nga ko dara. lu ma koy jox xaalis. mu jox nga ko som man xam naa asu na. ba li ma lay wax leer na fi ma toll nii bëggatuma ay coow bëggatuma jàppal na ñaay jàppal ci bàyyi diw damaa nekk ci période boo xam ne dafa am importance muy enceinte li ma bëgg nag mooy sa xaalis bi yaa ngi nii fi mu toll nii yàlla dimbal na yaa ngi pasar pasaree sa xaalis xam naa nga jaay jooma ñaaw yére boo sol fi tool toll nii bu amul pili doo ko sol paase ko gome ko ba mu ne mbàcc li ma bëgg nag mooy yëkkatil xaalis bu weex taal nga teg ko sama loxo ndax fi ma tool nii dama soxla loo xam ne dama koy de teg de côté bu ma yàlla mayee jàmm du ma toog fii kenn wala may kar kenn naan lii wax laa xam naa sa xaalis bi li nga pasar pasaree ko mu jeex. la blessure partir se Avenir en rose. Sur la terre dure, on retombe. Déception, chagrin et angoisse. Refouler ses larmes, boire sa peine, sentir les forces nous lâcher. Continuer sa route sans plus regarder en arrière. En fait, ça, ça, ça c'est quelque chose qui, renforce, qui encourage. Fama Diagne Sène, Ouais, elle était exceptionnelle. C'est une grande et poétesse. Et une très grande poétesse, femme. Elle est à l'université de, de Bambay. Ah d'accord, elle est là-bas ah, maintenant oui, <laughs> vraiment, elle bien, vraiment. Femme Diane, femme c'est autre chose. Euh, mais bu mm-hmm. bu tey dama bëggoon vraiment ñu parce que man tam dafa jot nag ma xoolaat sama bopp nit ñi ñu ngi may wax du n'importe quoi lu ne wax nañ ma ko yenn saa yi damay isolé sax toog sama garab gi mais les gens fekk ma fi bousculé moom dugal ma ci ay détails yoo xam ne vraiment maa ngi commencé regretter. soo même on dit que caam dafa tàng xol caam day attaque nit ñi caam day toog fii jël ay envoi xam nga on me taxe du n'importe quoi bi ma xoolee loolu bu baax dama ne caam daal doit vraiment. Euh, li nekkoon ci moom mu génne ko ci moom dugg ci beneen yoon cest à yoon bu bees yow tu moo mon fils sama hmm. doom nga te souvent dañuy waxtaan man ak yow dama bëgg tey nga wax ma réellement réellement laa wax bu ma rus nag ah non bu ma rus dis rek bu lan laa war a change si man quoi parce que nag quand même il est il est grand temps les gens même me disent dañ may wax ni ma caam da war a takk jabar caam à gauche caam à droite kër gi yaa ko kër gi yaa fi nag yaa fi gën a tàng xol pourquoi tous ces mots là vraiment neexatuma. yow na sa xel dal yow kan laa la wax ni mooy sa njëkkee. Marème Faye Sall. Ah. première dame xam nga loolu kenn waxatu ko. Ah. waaye am na lenn xam nga yàlla day sàkk nit. ah moom kañ la may fóon si nag boobu ba lii da koy dañ doon ah. xaar coupe d'Afrique bi la doon xaar te ñëw na. moom la doon xaar ñëw na fi mu ne am na temps. léegi nag gis nga yàlla dina sàkk nit muy dee waaye sàkk na ko du torox. am na koo xam ne daa teg sa njëkke fee ni moom du dëkk Thiès nekk doomi Thiès mhm. taalibi cheikh bi alaaji Mor Gueye mm-hmm. nee na ma léppi Ndeye Ndiaye soppee na bi jox ma ko visité moo clinique ba muy visité lu lu mu bëgg a lekk ak résumé mag lépp teg jël naa ko en charge. alaaji Mor Gueye na góoru maama si. maama si mu baax mi. mi ko soppee mu xam. xam nga ni yàlla seetaanu la yow. kii baax. yow léegi nag noonu la demee kon dalal. dala deni patt nag yow xam loolu xam lii moom du ko génne bii dañ may kar kon ah, kon nii bii moom du ma ko génne denc ko waaw ah jeex na waa léegi xaalis bi laa bëgg ñu waxtu jox ma man dinaa la jox waaw damaa war a jënd samay affaire nag yu sew yi gisoo ma yow boo gisee xam nga ne changé naa temps yi sama ne gisatoo ci fer gisatoo ci deeco gisatoo fa nuisette gisatoo fa dara cristal yeeg yooyu yëpp gisatoo ko. non kaay ma wax am na loo xam ne ko nangu yi ma gis nii Sénégal ngeen koy def bu ñu ëmbee rek bàyyee ko seen kanam ni mbalit weex seen i tuñ fet di pàcc pàcc yooyu man ëmb bëgguma ko de. na man damay yooyu jeeg man damay man ba ba may dem ñu naan ma ay ah, baare nañ la. Ah. say trente euh, six mois man mu baax. yow yaa tax rek ma cencoon ne woon damay use yooyu yëpp. dellul fa nga nekkoon. dellul fa nga nekkoon waaw xam nga bu dul loolu sax sa njëkk daa jonge waaw ah, tey maa ay eh, moom sarxatan la ma laa bëgg mu yónnee ma ko nag yi ay cuuraay yu baax lañ tey def dégg naa. jeex na waaw tey maa ay eh, jox ma defaraat ay dinjeer ak yooyu. jinjeer wax bàyyil waxi jinjeer. man nag du ma dinjeer nag loo bëgg nag. bàyyil waxi jinjeer lu jëm ci naan bu wesoon ndox bàyyil ma loolu bàyyil ma loolu jeex na bu ma jógee léegi jox la xaalis naa la joxaat xaalis nag génn ko ci biti voilà jeex na. noonu laa amee ma am na solo. man daal yoon bu bees boobu laa bëgg vraiment nga eh, xelal ma ci. parce que là je m'en peux plus quoi il faut que Thiam change donc euh, loolu nag yow rek laa ko mën na wax ah. kër gi moom mënu fa ko wax keneen ku dul yow. lii lan la fils miroir la. miroir introspection mea culpa c'est le fait de tuer le pédant en en lui c'est ça que tout simplement l'auteur de ce ce poème essaie tout c'est important li nga def léegi papa parce que lii. wàcc sa bopp la laaj ngir xam fi nga jógee li nga jot a def baax na ak fan nga war a dem maa ngi la ci remercier nag papa parce que yow sam papa nga mënoo tuuti tuuti tuuti ba doo nekk sam papa man mënuma rëy ba doo nekk sam papa dama jàppee sam papa bi ci kër ki noonu laa la jàppee mais quelque fois dama jàpp ne da ngeen a échoué te seen échec ci sama maam la jógee wala yéen seen considération ci sama ma c'est paradoxal que seen papa yéen ñu bari tey jii ci dëkk dëkkaan yi ñu wër yëpp moo leen may ñi moo leen may kër ñi moo leen takkal sox ñi moo leen wutal liggéey ba pare kenn ku ne moo la daan taxawu chaque fin du mois mais yéen bi ngeen juddoo ma màgg xàmmee wara liggéey pour sam maam la mu daan def bu fi jugee ngeen perpétuer ko déedéet da ngeen ni sam maam daan jàppale ñooñu ñoo la war a jàppale en retour bu fekkee ni sam maam da jàppale ay nit pour que ñooñu après yéen bu ngeen màggee ñooñu di leen aider en retour amatul sens c'était pas de l'investissement c'était des actes de bonté moom la sam maam doon def mais malheureusement comme. mbéeraa gi taxawoon na amoon na xaalis soxla mu leen woon dara donc kër yi bari woon na amatul leen woon souci n'avez pas su préparer l'avenir loolu tey moo leen yóbbee lii ngeen nekk xool sama papa presque quatre-vingt et quelque ans musta liggéey dans sa vie papa dan nga xëy sax di wut ay commission bàyyi nga ko garab gi rek te loolu c'est pas bon c'est bon dama lay jox benn anecdote la famille Cissé madame Cissé jëkkër ji nekk États-Unis Babacar euh, histoire boobu lu jara lu jara lu jara xool la lu jara topp la parce que madame Cissé Tabara ak Maymuna ak Penda ñoo bokk benn papa seen beneen sœur bi ñu bokkal baay parce que ñee ñoo bokk ndey baay seen beneen sœur bi ñu bokkal papa rek muy mami te nekk léegi Istanbul moo doon jóge Mali di ñëw di jaay butéel yi bu xëyee jaay tey mu jaay gerte bu subaa mu jaay dem dajale ay butéel raxas ko ba mu set jaay ko maire yi jaay radi gannaaw suba mu jaay si démb Mali bàyyiwul woon dara di dajale ñee seen papa di leen jox rek ñuy dem di feetu mami moomu tey bi kër gi amee problème mami moo jënd kër gi elle a toujours été travailleuse te loolu exemple bu ñu suivre te xam nga famille bi dañ fa daan dem donc y a pas de bu euh, déglu naa la bu baax vraiment maa ngi lay remercier bu baax euh, parce que aussi euh, dëgg moom puso la rek xale mën na ko for comme mag mën na ko for. te li ma wax nii dinaa ci jàpp xel bu baax parce que aussi nit ki su demee ba confié wu ci yow defe naan lépp lu ko nit wax aussi da ko war a jël ci ci nag mu nekk nag venant de toi un fils beneen bi li ma ciy wax mooy est-ce que. gerte boobu ñuy jaay wala tàngal yooyu parce que bëkki démb je me rappelle am na benn booy bu ñëw fekk ma ma ay tàngal ay mbuusu tàngal di ko jaay man j'ai eu sa gosse là 1000 francs bu ndaw bi mu amoon sama poche hmm. laa jël ni ko booy jox ma tàngal ma jaay parce que je ne pense pas que sa tàngal yooyu mën na ci dara mën na ci mën na ci mën na ci vraiment dund te exemple bi nga jox léegi est-ce que réellement ces petits commerces là man mii su ma jógoon di ko def wala si papa jógoon di ko def tey ah est-ce que loolu mën nañu indil suba dara je ne je ne le crois pas je ne le crois pas en toute sincérité quoi parce que aussi j'ai même j'ai même vu exemple ay Diallo Picc m'a même dit que Diallo Picc ay picc la doon jaay digg naa ba tey jii tey ay ay ay immeuble la yor te ay doomam tey ñoo ko donn vraiment. Euh, waaw autant de choses ay Ndiouga Kébé woote. ils sont partis de du jeex xam nga li tax du jeex. mooy en fait ñun dañoo am benn erreur bu ñuy def parce que nga kooku doon jaay ay tàngal nga sar nga jox ko xaalis moo la waroon jox parce que mi ngi daan dooleem petit à petit l'oiseau fait son nank nànk moo tax jàpp jaan ci pax mais ñun africain dañoo bëgg xëy rek sotteeku xëy rek nu yuret gis nga alal da koy liggéey da nga koy sàkku il faut partir à partir de rien ngay ñafe di ñafe di ñafe ba affaire bi tey fekk la fa xoolal ñu mbay exemple Patan Ndiouga Kébé yaa ko tudd exemple Patan boo jëlee Youssou Ndour illustration parfaite Serigne Mboup illustration parfaite te du jeex Jimi mbay ñooñu nga xamante ni dañoo ñafe à partir de rien di ko ñafe prenez exemple de Sadio Mané bi xëy rek dem France woo yaayam yaayam naan ko non noo nekk nekkuloo fa il a fallu yaay ji gis ko muy jouer pour la première fois au mu doog a ni son fils te parti en Europe muy dem il n'avait rien du tout lu waay gëm sonn ci yàlla fekk la fa je donne l'exemple de l'arbre garab gi ngay toog sa garab gi mhm. mooy sa bureau garab gi moo ko xaymaa yéen a war a tolloo âge papa non est-ce que màggu sax. est-ce que la. non parce que yii garab yii. est gi màggu la parce que yàgg na fi c'était depuis la colonisation ah, presque. léegi garab gi gisoo ni à chaque fois boo ñëwee da ngay gis feuilles yi di verte mm-hmm. des fois am na feuilles yu wadd yu jaune mm-hmm. feuilles yu dee mi ngi góor di jéem a changer à chaque fois mi ngi jéem a rajeunir te pourtant moo la mag ndegam garab gii ngay toog à chaque fois moom mooy jéem a changer yow mu ngi ciy toog jéemuloo changer. gis nga la nuit porte conseil mais les boo aussi porte conseil yow lu la jaaxalate xool ko ci garab gi hmm.